kàddoo hmm. kàddu hmm. hmm. su génnee rek génn na nag ko jox ndax làmb ji daa metti gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp géejawaay yàlla fi jàmm sax gërëm naa waa géejawaay bu baax ñëpp képp kuy autorité ak képp kuy mbër nekk géejawaay sama monsieur le maire nag Aliou sal Sall ngaari bu du gédee maa ngi koy gërëm di ko sant àdduna nii la di gë di félicité bay di baax bay di ba maire Gunaas moo gagné sama at ñoom Fuuta ñoom àndaw ñëpp gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp yooyu yàlla na la yàlla jàppale gis nañ li liggéey rafet na yow wasaare daal dafa wër dans le monde. dëgg dem naa Amérique fekk fa wasaare. dëgg la ci ay tiem. Hmm. sekk fekk fa wasaare. ak feneen ak feneen. kon nag yàlla na yàlla de li ngay liggéey fii yow ci Sénégal gis nañ ko. Hmm. Hmm. ñëpp ñoo ngi lay suivre. dégg euh, sa wujju yaay la xaw ma ak sa yaay gis nañ li liggéey. xam nga loolu dafa neex nekk ci biir kër. xam nga di kaf ak ñoom reeg ñoom def ay affaire ak yooyu. yooyu nga demee man lool la xam. man loolu laa xam. fair play waaye nag bool caat fu laak fayda. kenn du ma yab mun naa kaf mun naa ree fair play waaye kenn du ma yab. mais yow amoo ñaari jabar ba naan suñu xew suñu kër ba. waaw yow sa papa ñaari soxla. waaw léegi nag yow nga faral sa. wujju tànk sama xarit sama tante sa yaay nag ah kooku boobu aw ma boobu soxna bi la jur loolu du dara loolu sa gën a kontaan ci loolu sax ah, ah. loolu jàmm sax yàlla fi jàmm yàgg ah, di nuyu sa cameraman bi tamit vraiment kontaan naa tey daal jiri ndax fi nga fee jiri soo ma xoolee nii xam laa koy laay wax xam nga lii kenn moo ko décoré jàmm nga Gibson production grand promoteur moo ma décoré woon lii ci kombaam bi mujjee tëgg Gibson def lu baax mujjee ñëw ci làmb ji uh-huh. di ci def lu am solo vraiment maa ngi koy féliciter baax Gibson production moo ma décoré woon ma ñëw rek tey def la paix ndax bu géej waay jàmm laa fi bëgg ndax ñi ko wër ñu nekk ci tuusi yi ratatati di wax hmm. ñu tëj seen lameñ géej way jàmm fi am ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay xale yu mbëri man maay seen mag hmm. man maay seen mag man jàmm laa bëgg man su ma gisee ay ñuy waxante ci suuf wala kuy roog ngaay sax euh, su ma xol du neex ndax su boobaa mun na ne man maay seytaane bi mhm. te man du ma saytaane musumaa toog ci diw ba diw wax ma nee wala naawa man am naa fulla boo xam ni ak maturité boo xamee ni ma toog a ak yow <laughs> damay wax ci lenn keneen wala keneen ak keneen damay lay attaqué dama naa damay woo kooku téléphone ndax man loolu laa xam su ma amuloon fulla aw ma fayda aw ma caractère Balla Gaye du ma téye Balla Gaye du ma jàpp ndax Balla Gaye am na ci fulla goo xam ne mi ngi ci moom at fayda xam ne mi ngi ci moom bugul nga toog nga wax ci diw lenn sax dana barki Serigne Saliou Mbacké billaahi wallaahi taal loolu mën naa ko témoigner. dëgg la comprendre nga. xam nga li ma la. ñun jàmm la ñu xam. Mhm. Balla Gaye taalibe la. àdduna amul solo. Mhm. buñ nañ ñu bàyyi suñu géejaway. kenn bañ ñu dugg suñu biir. Mhm. kenn bañ ñoo jaxase. am na solo waaw ñun ñëpp ñoo bokk ndeg ba Balla Gaye moo jiitu. moo jiitu yàlla moom la fi teg. géejaway kan moo ko jiital. man ak population bi way loolu yàllaa ko def loolu yàllaa ko def mm-hmm. barki sëñ ba moo fi njëkk indi roi des arènes biir way ñu koy mm-hmm. tuddoo di sago mm-hmm. soo xamee foo dem ñu tukki euh, tukki wala fenn ñu lay sagoo di la wax ak loolu naan la Balla Gaye Balla loolu yàlla la sant yàlla li ma koy ñaanal yàlla roi des arènes bi ñëwaat ci ay loxoom te incha allah rabbi yàlla baax dina ñëw sooba yàlla comprendre la de guerre waxi nopp géej way lan am géej way lañ tudd yàlla ko yàlla may combat mu bëre daan de Géejawaay naat Sakes amaat combat daan Alisey amaat combat daan Marley amaat combat daan Papta am combat daan Jackson combat bi mu ñëw yàlla may kon ndam bu Siteu am na combat. xale yi waaw léegi ñu ñëw ci am combat bëri daal ñu ñëw ci li jot a weesu. Hmm. keroog gis nga Boy Niang 2. waaw dafa def conférence de presse. waaw jàkkaarloo presse bi yëpp wax ka ni Balla Gaye 2 daf koy daw. waaye yow Balla Gaye lu muy bi sax nee na bu Balla Gaye wéree ñu jox ko Boy Niang bu wéree ñu jox ko Gris Bordeaux. xoolal Boy Niang j'arrête Boy Niang j'arrête boo ñaamee j'arrête nañu dimbali li muy def lu duñ ko wax. borom kaasu fonde waaye dimbali ma kaasu fonde bu ñu waxee waxati waxi fonde fonde amatu fi la dëgër këpp na lépp li nga xam ne li ma la wax ñaa dafay teg xel. Hmm. na yaru su yaroo su dee bëreeg Balla Gaye rek la bëgg. su Balla Gaye war a bëreeg moom dina bëreeg moom muy def nag waxi teg xel la. moo ak est déglu ma lii muy def affaire teg la. moo ak estafam ak ñoom ñëpp ci bokk yem. Hmm. comprendre affaire teg xel la ñuy jéem a def su Balla Gaye war moom dina bëreeg moom na yaru tabaay wax ji xale la ndax dégg naa muy wax naan combat bi passé moog Tapha Tine dañ ko doon sot ay nit dañ ko doon sot ak ay nit dañ ko doon non non yooyu. waa waa loolu loolu loolu moom xale la bëri na ba egsi fii mu egsi. na ko sante yàlla te mu sa wax loolu ba mu yàqal boppam. fii ku ci am nag sa kër bàyyi nga koy yóbbu. Hmm. ku ci am looy jàppale keneen te nekkul sa nit sa bor sa bopp nga koy def sa biir kër nga koy def. Hmm. am na yoo xam du wax wax dafay rafet. waaw Tapha Tine ñu ko jàppale am na ñu ko jàppale moom it ñàkkul ñu leen jàppale ñu ko jàppale comprendre nga am na yoo xam du wax am na yoo xam du wax am na yoo xam su amee lamb ji su amee nañ ko à grâce ka a Aziz Ndiaye nañ gërëmee Aziz Ndiaye lamb jooju su amee à grâce ka à Aziz Ndiaye la nañ ñu dimbali xam na lépp combat boobu waaw combat boobu ne waay yow yàlla nañu dimbali xaw ma xaw mënti tëgg loolu foofu laa nan bàyyi wax yooyu am na wax yoo xam rafetul am na ñoo xam dañoo nekk pour sauver lamb pour dimbali lamb ñoo ngi def loo xam suuf ma sàmba yëgul ma demba yëgul ñun xam na lépp ci dëkk bi la ñu dëkk fii dara du fi umpe. Hmm. am na ñoo xam suñu nekkuloon ci réew mi du baax ndax lu ñaaw la ñuy bañ. Hmm. defar lan fi nekkee lu ñaaw la ñu bañ defar lan fi nekkee kon nag wax day rafet am na ñoo xam ni li ñuy liggéey ci réew mi ci suuf hmm. suñ ko xamoon di leen tëj seen làmmiñ kenn bañ a accusé kenn kenn bañ a kenn yow am nga ñu la jàppale am nga say mbokk kii am mbër mi am na ay mbokkam ah am na ñu ko jàppale. Hmm. kon nag am na yoo xam jarul wax. kon Balla Gaye Boy Niang dinañ bëri. xaw ma de yàlla xam yàlla xam yàlla xam. na yaru rek na yaru na yaru su yaroo na yaru. te bàyyi wax ji. lan mooy yaru Balla Gaye ndaanaan mi ngi naan bala Gaye naan dafa waroon dem ci maire bi ñu jël ko. Balla Gaye président sax Balla Gaye mën na ko nekk waxuma la waxee ay. Balla Gaye dee président barke Serigne Saliou Mbacke na nekk président. président de la république président de la république Balla Gaye mën na ko nekk président de la république Balla Gaye mën na ko nekk. président de la république Balla Gaye mën na ko nekk. wala premier ministre muy wax ay maire maire kay xanaa kay man la ñuy wax. waxoon naa la xel beegi. doo def dama lay wax suñuy wax maire man la ñuy wax. Ah. Ah? ah Balla Gaye mën na nekk président de la république. muy wax ay leneen. nañ ñu bàyyi wax ji waay. te liggéey. Hmm. ah j'arrête. ah na ko jël muy dagg juuti. moom laa la wax. wax boobu xam nga loolu lépp juuti marché waaw da may déglu loolu lépp ban marché moo gën a da nga may déglu xaw ma saytaane nga dimbali ma nga am ay ban marché moo gën a jëg eh, eh, eh, am na yoo xool booy dama lay wax bu nekk président de la République <laughs> Balla Gaye tey jii maire bi suñ ko doon kay man la ñuy wax <laughs> xanaa man la ñuy wax wala Balla Gaye mën na nekk président de la République ndax liggéey na ko Sénégal liggéey na ko ci réew mi ah mu naan na ko nan ko jël mu nekk alju man tax damaa soxla leneen lu ñuy wax naan ah, bay mooy wax Balla bi ah wax dafay rafet waay dafay rafet kay wax dafay yenu maanaam maa ngi gërëm waa diaspora bi ñëpp di gërëm sama waay yi Paris ñoom Ndoore uh-huh. ñoom ah, Sarr bu sëñ Mansour hmm. képp kuy bëggee at sama yaaj ji Adja Gaas borom Angleterre ñoom jami ah, Jali Jàmme hmm. ah Ndey Maada Baro di ko jaale waajuram bu jigéen boobu génn àdduna sama jigéen la Gambien la ma nga nekk moom ca ca Angleterre hmm. non ma nga nekk ca wa Angleterre si Angleterre Ndeye Maada Baro. Madeleine. Mm. Madeleine ma nga nekk ci Amérique. vraiment mm. Mm. gërëm naa ñëpp di gërëm waa Amérique yëpp ñoom moo Ndiaye directeur gërëm naa ñëpp Sénégal yàlla fi jàmm sax Guédiawaye yàlla na fi jàmm sax. ku bëree yàlla na daan xamaguma yàllaa xam waa Amérique gépp maa ngi leen nuyu di leen sant ndax bëgg nañ ma di ma bëggee di ma xaar. yàlla guy gi nag combat bëgg naa ñëpp jàppale ko te yàlla tax. nañ ko jàppale. ak man ak yàlla tax loolu daal lay ñaan mm-hmm. aw ay koppar de. Hmm. waaye bii maa ko moom. waaw te damul ci poos. Ah! waaw. yàlla na yàlla musal ci càmm jërëjëf kaar macha allah bu ñu càmm nii rek ngeen fi doon wax naa ma yéen a ngi bëre yéen a ngi musul du taxam na combat sama doom jooju yàlla na ko yàlla defal jàmm champion la ndaanaan la képp kuy mbër daal te nekk géej am combat yàlla na la yàlla defal jàmm gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp gërëm waa notaire waa gunaas partout di woote open de presse bi nag altine bii di ñëw maa ngi woo ñëpp ñëpp fépp ku mbër nekk maa ngi lay woo. Mm. ci open de presse bi sooba yàlla jërë ngeen jëf. jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf jërëjëf mbokk yi euh, Lirou Diane la ñu dalaloon dégg ngeen li nga xamante ne wax na ko ci làmb wax na ko ci géejawaay vraiment noonu la war a toogee kilifa la boo xamante ne nit ku baax la yàlla rek moo ñu tax. ñuy yàgg nañu. bokk problème xam ma yab rek. dëgg la bañ ku ma yab kese. kese kese kese kese kese mun naa kaf mun naa ree mun naa bëgg waaye bëgguma ku ma yab. dëgg la bëgguma ku ma yab. dëgg la xale yi samay rakk lan. Mhm. ñoom ñëpp sumay rakk lan. Mhm. jam laa leen yéene. dëgg la jàmm laa leen yéene. la te yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp ndax géejawaay ci kaw ca kanam ndax damaa bëgg géejawaay hmm. damaat yeneen da ya mu nekkoon lëfal yooyu ñu damaat yeneen lëfal yeneen lëfal hmm. hmm. te deen maa ko wax nanu booloo rek yéenante jàmm kenn bañ a xaj suñu diggante rek ñu dem yeneen lëfal waa la ko wax am na solo mbokk